ñu xeeñ neex ah. wallaay moo tax dëgg rek mooy dëgg pourtant nag monsieur Lamy avertir na la woon nag monsieur Lamy avertir na la woon nee woon na la baa ko bëggee baa ko naree éliminé day say loxo dina tax monsieur mi moo ko waxoon gis nga lii lii am nii ah xoolal ONU Mardi, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a notamment mis l'accent sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre les manifestants. Hmm? Ah, dëgg rek mooy dëgg de te dëgg rek moy mujj nag billaahi dëgg dëgg rek mooy mujjee caaxaan nag fële laa aw te li si kanam rewul gët yàggul dara yàggul fu mu nekk ni mom li nga doon neub li nga doon neub yéen mu jëlal lay ngeen couper internet bi oh, yàlla bëggu fekk jaarale na ko feneen wiiril na ko ba jaarale ko feneen yàlla mooy karim azawajalla oh <laughs> garde leen mu sell mi en sécurité en sécurité fu mu nekk noonu si kër góor gi teewluñu ko foofu mu nelaw ba nelaw yu yu doy wala lekk bu suur xam nga tëdd dallu gën a inspiré maa la wax loolu <laughs>